bi génn aada ndakaaru ni ko gars yi di waxee rek mooy aada ndakaaru génn na gars yi koy nemmeek muy taxaw ak Abakara. mbokk internet Siweulko TV comme ni ma ko gisee noonu aada Fass première image yaa ngi noonu aada Fass noonu mu ngi noonu Abakara yéen a ngi koy gis si image yi yéen ngi gis ay dara yéen a ngi gis def-def nooree ñoom tamit sonn nañ lool. Doudou ndeysaan doomu nday aada Fass a ngi noonu. Ada mu ngi noonu ndeysaan champion la waaw ay dara mais bi rafet na jaajëf bëggee waay <laughs> Ada day julli ji juma Ada day <laughs> <laughs> Masaalikul lay julee. asalaamaaleykum mbokki internet Siweulko TV ñu ngi nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi te nag dañoo doxantu ba Fass waaw fekk fii suñ doomu ndey plateau plateau tey mit naa laa la fekk de hmm, nga def sa foto bu xeeree Basirou Diomaye Faye sa ginnaaw. <laughs> waaw mais auzu billah bismillah inna wal yàlla ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi. di sant suma ñaari waajur di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di sant sama papa bu baax di nuyu waa fas suma ma dëkk waa Niathioker waa Médina Dakar Plateau bi yëpp di nuyu képp kuy bëggee Plateau la Jamaliya rek maa lay jaar di nuyu bu baax di jiital nuyu bi kilifa suma président bu mu jàppee ba tey bàyyiwul Pa Fall waaw sama papa tamit depuis France xam nga grand maxa képp ku may jàpp di nuyu sama yaay bu ma fekk fii tey moom moo waral lii sax sama yaay maman Malado. ñu ngi koy ziar bu baax ano mm-hmm. parce que jàmbaara ñu noonu quoi. après incha allah nañ gën a déroulé sax si moom. Mm-hmm. Mm-hmm. Pape Fall yàgg naa ko dégg si émission yi nga xëy sant di ko gërëm yow restauration relation Pape Fall mu ngi mos a ñëw. waaw mais papa ak doom la rek xam aduna àdduna moom ñu la teete moom ba nga toll nga toll ba mënal sa bopp kon ñooñu dañoo mérité benn reconnaissance ak benn cër bi ci moom. waaw fu ñu ma dugal foofu laay dugal fu ma génnee foofu laay génnee xooluma lu ma arrangé si ñoom ñoom lu leen arrangé rek laay xool. parce que bu méttee ba métti ñoom la koy taxaw ni kii suñu fils la. naka seen écurie seen écurie bi temps yi na coow. suñu écurie que écurie moom commencé gul ba hmm. lu bëri. xaw ma lu si dëkk bi. hivernal nan nga koy nan nga koy waaj. sama grand yi ñoom utal ay coach yu yu baax ma nekk di ci ànd ak sama doomu nday nga déranger. ñoom Serigne Ndiaye Koréas ñu ngi entraîné doon sant yàlla bu baax. Hmm. maa ngi bu baax a a baax. Mm-hmm. Ada Fass mu ngi fa woon wala. non Ada néew fa waaw gis naa gis mais xëy na yàlla na ko jàmm te di ko ñaanal na tomb yàlla génne ko si bu baax a baax. mais dégg naa temps yi da ngay politique. damay politique. waaw mais yow ñun politique fan politique ma damay jàppale suma yaay suma xarit. Mm-hmm. koo xam ne day jàppale doomu aadama xaalisu récompense xaalisu dara may fu ma fekk nii suma yaay moo am mm-hmm. dama lay expliquer anecdote boo xam ne. pour wan la la rek ñuy ñuy baax ñu ngi baax ba tey am ñoo xam ne dañuy maye te ndeysaan bëgguñu mu siiw. waaw ah, mais lu baax dañ koy wax lu baax dañ koy siwal te loolu dama koy dañ ko koy forcer sax amaana billaahi parce que man dafa ma jàppale sama combat xaw ma woon sax ki par la démb laa fi ñëw yëg ni sax kiy jàppale na ma. naan kër démb laa koy soog a teg bët. Mhm. di ko sant bu baax di ko ñaanal di lancer tamit moom si social lay yëngu si social lay yëngu ama mais jeunesse bi temps nii ñu ngi jël gaal gi dem de yow lan ngay wax jeunesse bi aussi. waaw mais loolu bu sama bu sama yaay adhéré rek bu sama yaay kii gars yi ko jàppalee may ko doole tuuti. Hmm. loolu day jeex. waaw jàpp naa ne kon boobaa kuy dem ci géej rek jënga wëri mais du dem tukki. sa yaay ji kan la àndal Macky Sall la àndal wala Ousmane Sonko wala. sama moom si Sonko laa xam mais après moom dina toog leeral fu mu bokk <laughs> mooy loolu incha allah. Hmm. yan combat la ñuy la ñuy xaar si combat non man xëy na nag loolu boo laajee ay pafal lañ la ko wax man xale bu ñuy diri rek laa man damay entraîner rek man lu ñëw rek ma ànd ak moom. léegi ko avance comme Ada Fass encaissé na ñaari avance. Ah, non yàlla baax na <laughs> xëy na gars yi lekk nañu avance bi ma ko nëbb man palaa bëreel rek parce que xam nga rek man dama nekk ndaw boo xam ne. nañu wax daan ban combat moo taxaw suñu waaw tamit. waaw ah, combat taxaw parce si kii bi ah, naa si mais tamit komba bu taxawee. gars yi dañ ma ne combat taxaw na man sama xaalis xaw ma fu muy jaar ci làmb. man ma de man sama lépp dama ko joxe. Gomis déggoo may la man ci kilifteef laay defee lépp moo tax du ma jum ci kilifteef laay defee lépp bilaay parce que làmb xam rek. Mhm. làmb foog nga am kilifa quoi. làmb foog nga am kilifa. di sant ñëpp nag parce que làmb moom staff la sama booy aussi comprendre mhm. mooy loolu lu ma lay wax rek làmb daal. da ngay jiital ñu nga war a jiital rek bàyyi leen ñoom ñu déroulé seen bopp looloo bu solo hmm. Hmm. Hmm. waaw. ñu ñu xaar ay ay ay combat waaw ah, bien bien bien sûr incha allah. mais combat bu ñuy dégg si Ada Fass ak Lac euh, de Guiers waaw ah, loolu bu taxawee làmb la mais avant tout tamit saa yàlla ko yàlla génnee ci nattu yi rek waaw xam ne xale la dafa juum quoi li lu dara àdduna moom. yaadee woo yaadee ba parfois di nga ay moment yoo xam ne nattu yi day ñëw mais si nattu yooyu noonu nag ngay génne jàng jàng ci àdduna. Mm-hmm. lu may tàmm di wax ci moom rek sama waxu démb mooy sama waxu tey aar bu ko yàlla teggalee lii ndax xoolaat xam ñu ko bëgg xam ñu ko bañ parce que loolu dara suñuy yaay suñuy papa suñuy rax xam na ñu ko bëgg. comprendre te ñu ñëpp ay doomu Fass la ñu ñëpp ñoo bokk drapeau bi ñuy représenté may dégg yi ni neexuma mm-hmm. mais damay jàpp ni du moom nattu la rek. waaw nul ne pay échapper à son destin. Ada Fass war naa xeex. loolu vieux la moom. mais tant yow duñu dégg nga ne ñu ne plateau mu ngi xeex. mosuñu kaa dégg dégg duñ ko dégg man dama man sant yàlla quoi man dama joxe sama bopp dama joxe sama bopp ça veut pas dire que dama joxe sama lépp. Mhm. mais loo xam ne moo ma nar a si lu bëri dama kaa joxe. ñoon di ma ko gérer lu mu waree mooy ñu ma la sama gannaaw Fallou Diagne bu nekk à France Pape Fall Kempes wati ba souf waaw Kébé le sorcier ma ngoy ziar bu baax waaw pa fal pa fal moy moom mo tax ñoom ñaar ku ci tok rek li rek xama nga waaw sant yàlla quoi ba tay li yeb ñew ñam meggu nge depuis baax man ma la gis si boîte yi ngay ah, ñëw soirée waaye seeg wala fenn nga ne yow du la gis si soirée yi doo ma gis si soirée kon gaay ray ma de kon gaay yi sax legi dañ ma waañ dañ ma choisir cant yi may dem bu weesoo guddi ajuma barki alxuraan awma occupation hmm. saa dama fonk lamb dama baye sama métier ciak ciak mu ma def baye lepp nak lamb waaw ah, parce que ma xam naa ne booy mënuñu ma. Mm-hmm. bu sama xel dalee rek ma doon palaatoo rek wër na yàlla booy mënuñu ma mais yàlla yàlla def jàmm mbër yàlla génnee ko fu mu nekk ak ñu mu fa nekkoon dool mm-hmm. parce que moom kese ah. am na suñu yeneen mbokku mbër yi fa nekk ay albarka keere. Mm-hmm. boobu ba tey ñeneen ak ñeneen saalum saalum xam nga bëri nañ ak képp ku fa nekk rek dèjà récemment di jaale Fallou Isi. su ma su ma waay su ma grand. di ko jaale bu baax a baax a baax di ko jaale gaucher. di ko jaale ñoom mañaan waa douzième jaago di lañ ko jaale bu baax waa PT FBI di lañ ko jaale Cheikh Bouye tamit di ko jaale Fallou Isi bu baax waaw plateau ñu gis démb image yi dàqee gis jabaru Ada Fass mu tëddee sa nekk tribunal loolu noonu nan lay def Ada am famem am doomam nga gis ko mu nekk ci coono googu noonu waaw mais nu jabar ji nu muñ rek xam ne àddunaa ngi nii de àdduna moom nattu du wees quoi te gis nga bu la yàlla booleeg nit rek tey amaana yàlla moo ko booleeg aada ñu war a sëy mais sëykat dëgg dëgg dëgg dëgg moment yi la. Mm-hmm. sëy du bu muy neex kase. waa jigéen jigéen ba war a nekk jàmbaar fàq tëdd waaw jàmbaar fàq tëdd mooy moment yi muy méttee ngay góorlu jàpp sa jëkkër di ko soutenir. Mm-hmm. bu génnee tamit nga woo ko toog waxtaan ak moom parce que jëkkër ak jabar moom loolu intimité la quoi loolu moom. nëbboo waru fa am dara waru fa am. mais maa ngi koy ñaana yàlla may ko xolu muñ jala maa ngi koy ñaana bu baax yàlla may ko xolu muñ parce que dafa man sama dafa daw quoi moo ko gisee xam nga ak doom ji te gars yi nañ di filmer image yu jaar yoon am na yoo xam ne kenn waru ko wane. dañu wax ne dëgg quoi lii nattu rek fii am na yu fi gën a garaaw yii seytaane moo ñëw nii lu am occasion bu ndaw affaire bi am nii. Mm-hmm. lamb loog ne eh, eh, mbër day am gétt. waaw yow analyse boobu noonu noo ko gisee. non dëgg la mbër day am gétte. mbër am gétt mooy lan nga delluwaat sa koñ ñeme ñu lay wax dëgg parce que dëgg tamit naa la dara de man sama grand yi nii tey ñu ma ëpp ëpp ñu ma doole ëpp ñu ma fit mais lu tax ma dégg leen dama leen jox cër parce que xam naa ni tey sama avenir lañ bëgg parce que fii kuy ñaan yàlla rek dangay ñaan yàlla avenir bu ma meilleur mais dëgg yaay ubbil sa kanam nit yi pour ñu mën la wax dëgg yaa ngi dégg fu may waxee pour nit pour nit wax la dëgg yaa koy won kanam boo xam ne amaana moom dina la ñemee wax dëgg parce que man sama papa ma jur sax bu ma yeewu fajar fas sama kanam du wax ak man. kon par rapport ak ñi si mbedd bi parce que mbër lu ma lay wax ne mbër gétt la mais base mbër base la sa koñ mooy base bi waaw yàlla ko yàlla nag xam nga génnee ci lu mu ne yàlla indiwaat ko mu ñëw Fass xam ni Fass moo yëfam. Mm-hmm. saa yi ñun Fass mu man koo rek jàppale la saa yi dañoo am ay légende quoi ñun dañoo am ay légende dégguñu roi des arènes mhm. mais ñun dañoo am loo xam ne moo raw roi des arènes mooy ay exemple mhm. ay Mame gi Ndiaye hmm? ay Moustapha Guèye ñooñu ils soo réussi ko seen carrière ah, si Moustapha Guèye sax laay taxawaat muy Moustapha Guèye ban taxawaay la taxawee si Ada Fass bu ñu ko téye ba tey non loolu xaw ma si dara fléau bi bëri na gaa yëpp ñu ngi jël gaal gi di tukki waaw mais ndeysaan ñoo ñu dem ba pare mënu ma wax dara si ñoom xamul tax parce que ku ne xawma ma ban situation nga demee te gomis gaal seen metti na trop billaay wallaay wa taalaay instant mun naa ne jamono gaa yëpp sagu yàlla la lay demee am na ñoo xam ne yàlla da leen na mënuñu wax déedéet ni dalay ñaan sax sa moromu yaay nee la diw dama may lii man dafa may dal diw dama may lii pourtant doo ko yor waa nga koy mujj wax dem xool noo ko lijjantee parfois nga yeewu sa yaay am problème nga war ko lijjanti saa boo gisuloo liggéey doo dem sàcc ji nañu woon de dëgg parce que town bi dafa metti neexul waxee mais booy di jël gaal gi dëgg la baaxul man digalu ma ko kenn man digalu ma ko kenn barki Seydina Mohamed man sama yaay day tiit si man ba tey su ma ko tàggoo ne ko fii laa jëm sama foone gaal gi laa jël te loolu noonu nag incha allah am nañ ci yaakaar ñun bu ñu fi toogee tey te waxulu ñu jeune bi rek ñun kon wàcc nañ suñu yoon parce que tey man mbooloo ma demee ba koy yóbbu jeunesse bee tax comme naan kon suñu yaay maman malaado ñu ngi lay ñaan tamit xam nga yàlla gën la yokku gën la wéral te tamit di la gën a dénkaat jeunesse bi parce que man am naa frère boo xam ne ci gaal gi la jaar. Hmm. tey bu tombé loolu ma xam suma yaay du si jaar. looy wax nii barki alxuraan di ko ñaanal nag moomoo bu baax. ak ngaala xam nga moom moo doon sotti gàllaaj. non moom moom instant yii dana am lu wàññeeku si yow de moo doon sotti gàllaaj dugg si àll bi de. du wàññeeku foofu yàlla ko fas yàlla suturaal xam parce que tamit dëgg la quoi ngay xool sa yaay chaque jour muy am soxla mënoo goo ko faj loolu dafa metti hmm. parce que métier amul liggéey amul lépp lu ñun la lu fi baax yàlla suñu borom la. ok la di santaat sama gars yi may jàppale waa Kempes di ko sant bu baax mu mbës Pa Fall bi toog Fallou Diagne sama père sama conseiller moom tamit jàmm si yow di santaat sama yaay di santaat sama yaay di santaat sama yaay bu ma amee jom bi tey moom la quoi. Mhm. ak sama papa ak képp kuy bëggee plateau rek Pala mu lay sant.